mais en tant que président arcola laa di wax ak ñun ñun comédiens yi dañ ñoo boddi waaw respecté wuñ <laughs> euh, ah. ah, ku la respecté du la jox financement. léegi. Hmm. ministre bi ni ñu. deux milliards mi ngi fi. dañuy jël un milliard. Ah. waaw. dinañu jël milliard. Hmm. jox ko yéen. les acteurs de série là un milliard bi ñu bàyyi ko Fopi Fopica. ku ko wax ministre bi. ministre bi ana un milliard yi. xaaral mais. voilà da ngeen mais ba muy wax. mais waa maa ngi ñëw moom dama koy. seetal am nga problème lool. moom damay seetal maa ngi chuté maa ngi chuté parce que comme que sànq ba tey dama doon déglu. waaw maa ngi chuté ministre bi ci boppam. Mm-hmm. ni ñu mais balaa ñu ko def il faut ngeen bëndi document. ñu wane ni yéen théâtre kat yi ñëw naa ma recevoir leen. Ah. lii ak lii ak lii yéen a ma ko wax. bi ñu yóbbu nañ ko mooy Lac Rose bi. déedéet bokkul de. waaw gis nga document boobu. xam nga lu ñu mu wax ci mbaaxam il est moom man man je le trouve bien sincèrement. mu ni ñu bu ngeen bëggee ma ngeen bindal ko seen bopp ñu xam ni man influencé wul ma leen bu ngeen bëggul ma jëlal leen technicien fayal ko sama xaalis mu bindal leen document bi. waaw ah, bu ko defee ma jël document bi ba ci président de la république teg ko ci kaw taabalam parce que xam naa ni am naa moom loo kóllëre googu. léegi yéen bind nañu ngeen. waaye bind nañu ko yëpp. def kon est-ce que ko ci président président faale boo ñu faalewul ko déedéet déedéet. non président dañ ko dul jotale li mu war a jot. gis nga ñun affaire culture affaire culture ministère la culture ak yooyu. Hmm. ministre ay chant la ñu war a def ak ministère rappeur ministère chant. ministère tableau dessiné. waaw mais ay théâtre ñoom ay musique théâtre ñun waruñu ko tuddati Sénégal grand yaay président Arco respecté wuñu les artistes comédiens ici au Sénégal. demal ci loolu merci Ndiol merci beaucoup.